bisimilah barke borom Touba bisimilah barke borom Touba bisimilah barke borom Touba inna lillah wa inna ilayhi rajiun kon ñu ngi yëgal mboolem daara yi mboolem jëwriñ yi dinañ xamal ne yàlla suñu borom mi nga xamante ne mooy liggéeyloo ñu baax ñi ci siraatul mustaqim di tàmbalee suñu maam aadama ba bisub tey nga xamante ne tey jii suñu sëriñ bu tedd bi moo ko lii liggéeyloo liggéeyam bu màgg bi mu liggéey ko ba liggéey bi àgg yàlla suñu borom gërëm ko jund layel a gunge ko mu dem ci suñu borom dogal boobu agsi na ci nun tey waa Hizbut Tarqiyyah waaye na ñépp xam ne ginnaaw wóor nañu ne rasulullah sallallahu moo wane yoon wi def ko ci jëmmi boppam agsi suñu sëriñ bu tedd bi kon tamit bu agsee ci suñu kaw dañ ko war a nangu te it doxal ci gëm yàlla doxal ci wéetal yàlla doxal ci nangul yàlla suñu borom kon lii moom mooy li nga xam ne moom lay ubbee samay kàddu wax ak euh, membre isbu talxee jafe na ma lool waaye di leen xamal ne kon dogal bi agsi na sunu kilifa di sering Atou Diagne di responsable moral isbu talxee yàlla suñu borom dogal na mu génn àdduna noppalu na ci fajar gi ci guddi àjjuma ci fajar gi ñu ngi koy indi nag Touba waaye dina xamal ne Cheikh Mouhamadou Mountakha du lu mu bàyyee kenn du lu mu séq ak kenn moo koy taxawal boppam yéen nag da ngeen di ay jëwriñ te xëñ na am na ñoo xamante ne mën nañoo doon doomi kilifa wala ñu jege daal di koy siiwal ngeen déggee ko feneen loolu du caaginu dañ leen a joxul seen cër dafa di lu ñuy def faw ñu def ko ci ndigal loolu rek moom mu moo ñu dab nit ñi mën nañoo fore fu ne waaye yéen ñu ngi leen di xamal ne leen dogal boobu agsi na ñu leen di ñaan ngeen dëgër te gën a ñu feddaliwaat suñu jaayante suñu digganteek ak sëñ Tuubaa te xam ne sëñ Aatu wan nañu aw yoon woo xamante ne yemul ci wan ñu ko wan nañu ko waaye gunge nañu ci ànd na ci ñun ba toqi ñu ci kon dara desu ci lu dul ñun ñu wane ne liñ jàngal liñ doon jàng mokk na loolu foofu lañ toll kon kon toll nañ ci war ko taxaw euh, di xaar sëriñ bi incha allah waaye ñu bëgg kenn ku ci ne fañ la taxawloo nga taxaw fa fañ la toogloo nga toog fa ñu taxaw ko ndax suñ ko suñ ko lijjantiwul ci ci ci teg ko ci yoon kenn du ko àttan ndax waxuma la yoonu murit yëpp waxuma la lislaam yëpp waaye Sénégal kon ñëpp dinañu buur ñëw fi te jamono jii ñu ne mu jamono boo xam ne jamonoy mbas la mbooloo mu dajaloo li mu mën a jur ci yàq dafa bari kon nañu roy sëriñ bi ci ni muy doxee mooy kenn ku ne yam fañ la yamloo kenn ku ne xam li nga war a taxawee loolu suñ ko defee dinañ taxawul sëñ bi dinañ jàppale sëñ bi loolu daal moom lañ leen bëgg a wax bi mi ngi ñëw waaye moom na leen wóor ne muy ñëw jël nañ dispositif boo xam ne jox ko loxo képp mayuñu ko kenn mu def ndax la la la la ko jëmmi sëñ aatu jaral ba tax dégluwul kenn mu ne mooy ñëwal boppam moo koy taxawul boppam kon loolu ñun suñu teggin na matale ba ñu xam ne kon kenn du ko nuyu kenn du wax ak wax ak moom len lu dul moom mooy joxe ndigal ñu di ko jafe jërë ngeen jëf inna laa